yàlla yàlla bari nay tur waaye benn la ci tudd allahu la tudd allahu rek yi ci des yëpp melo la dafa am turi melo ak turi jëf léeg-léeg nit melow melow ba ñu di ko ko ooyee du tere mu am tur léeg-léeg nit di jëf lëf ba ñu di ko ooyee jëf jëf du tere mu am tur parce que maçon bi tur la ministre bi tur la écrivain bi tur la chauffeur bi tur la waaye turi jëf la looy def ba ñu di la ko ooyee mu ngi mel ni basiiru samiu alimu xaadiru kii mooy borom doole ji kii mooy ku gaaw kii mooy gis gi loolu terewul ma am tur turu jëf dafa mel turu melo it dafa am njool mi tur la ndaana gi tur la góoriw gi tur la terewul tur am fa noonu la mel ci yàlla turam piir mooy laaw li mu antan benn tur antanu ko liif laam laam alsaqeer soo ko doxee gannaaw fàq liif gi du tax tur bi yàqu day def li lay maa fi samawaati maa fi ardi nga fàqat génn liim gi du yàqu mu des loo mulku samawaati wala ardi nga fàqat génn gi alkubeer googu boo dóoree waaw ci kanam muy huwa lawalu wala axir wala ayir wa baatin wa bikulu seen ali looloo tax mu bari doole Moussa nag mel ni dafa fàtte tur yàlla dafa tiit benn waay bu neex daana wax daana wax tiit mu ko Moussa jàpp ba mu fàtte turu gorom te ne ci ngoro gi jëlagul waaw di fax di wax borom di fax goro bi borom néeg bi waaw waaw fàtte na tur bi tiitaange loolu la looloo dal Moussa rab bi mooy firi yar yar rab bu mooy firi yar ki la yar Moussa fàtte na turu yàlla laawu fàtte na ko ci ngir tiit mi di wax naan kàllaa du ñu ma dab du ñu ma dab inna ma ànd naag man rabbi ki ma yar te sa yax diin waaw ñu ne nag ñaari taalif la def fàttali na ànd naag mbooloo mu naan inna ma ànd naag man man waxul ànd naag nun rabbi ki ma yar sa yax diin yi looloo tax muy taalif Moustapha ba mu ko dalee fa mu ko dala gën a xat fi mu dal Moussa ci mu xur la woon ñu tiim ko muy pax mu munu la wëlbatiku waaye ba ko mois ba ko ba Ababacar ne gaa yi kat dinañ ñu gis daf ko ne laa taxsan inna laaha maa ana bul tiit yàllaa ngi ànd ak nun kooku waxul mu ngi ànd ak man ki naan mu ngi ànd ak man fàttana surgam mu ngi ànd ak man ki ma yara ngi ànd ak man nebi na bul tiit inna laaha jël tur wa piir maa ana mu ngi ànd ak man ah ah Moussa Moussa sës ci géej firaw na sëkkamtal ko gars yi ne ko inaa la mudrikoon defal pexe dinañu dee tey kat mu ne kala inna maaye rabbi fa yahdini firaw na rëppatal dem nañu ba suufi fasi naaru góori firaw na yaa ngee dal ndongi gawari Moussa ji te yàlla waxul dara moo gaaw walla ñu naan ko inaa la mudrikoona mu naan ah ah ci la jibril doola xaajooy asmaan yi juróom ñaar langaan romb ko ne ko idrib bien sakal baax doola yot mi ci géej mu ne jaas ak yet wa ne ko taax ci géej gi géej gi gën a falewu purital sànni ci yeeli fas yi gaa yi torote songa si ko jibril naalaat ne ko idrib bien sakal baax doola yet mi ci géej mu ne ŋaas yet mi ne ko ci géej gi taax géej gi falewu ko gannax sànni ko gaa yi rëppatal jëm si ko ñu ne ko inaa la mudrikoona mu ne kalay na ma rabbi fa yaa diini jibril door a naaw ne ko bul sacrifice soldat si fa salli alal muxteer julil ci nabi mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne mu ne allahuma salli ala sayyidina wa mawlana muhammad na ngaas yat wa na ko ci géej gi taa alquran ne fan falaxa fa kaana kullu farqin ka tawdil azim waslafna sama aqarin wan jeyna muusa wa man maawuf mboolem kuy yonent 313 la ñu yonent yi l'anbiya yi ñooy 124 mille 124 mille yooyu la ñu def examen 313 génn premier ñu boole leen dawal set raw ñu jukki set yooyu Moustapha jël seen pët kon mooy premier yi premier yi premier yi vingt-quatre la alxuraan tudd ci yonente yooyu amu ci kenn ku mu tudd lu dul dafa adressé sa tur carrément nabi rek la alxuraan di teral bañ a jaar ci turam di def kinaaya istiraman wa tallahusan bi iznihi maam Adama jur ñëpp waaye ba yàlla yoo xam moom ca tur wala jaar daf ko ne yaa Adam urkun anta wa sawsakal janna carrément ca tur wa noo ngeen kilifa la ba yàlla yoo xam moom tur wala indi carrément jàng gi na arsalnaa nooxaan ilaa xawmihi carrément ca tur wa ndax maam Ibrahima kilifa la de waaye ba yàlla wax ak moom ci tur bi la jaar yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala Ibrahima fa araadoo bi kaydan la alquran wax Yuusuf ak li muy rafet yëpp ba yàlla wax ak moom ci tur bi la jaar carrément laqad kaana fi yuusufa wa iqwati ayatun li saa'ilin yi sont yàlla Suleymaan kilifa la waaye ci tur bi la yàlla jaar wali Souleymane riixa la alquran wax yonent yàlla Yankooba turam la ñu jaar nooy li muy baax baax ci tur wa la ñu jaar yàlla ne wa inna Yunusa la min almursalina ida baxa ila alfulki almasuni carrément ca tur wa bul fàtte mukkit na yonent yàlla Idrissa dañ ne waskul fi kitaabi Idrissa innahu kaana sadiqan nabiyya nabi rek la yàllay soxla te bañ a jaar ci turam baqara ba naa si ñeenti muhammadu rek nga ciy gis ali imran am na muhammad laxsaab am na muhammad lasina kafaru am na muhammad inna fataxna am na muhammad mu jeex takk yi si des yëpp yàlla da koy wiir rek ni ngay wiire koo ormal booy wax ak moom xam nga koo xam turam di ko wax monsieur le ministre te xam ni mu tudda carrément toral koo tax sooy wax yaa sëyxii te xam turam teral koo tax booy wax yaa abibi te xam turam teral koo tax monsieur le président te xam turam teral koo tax sooy wax sama nijaay te xam turam teral koo tax façon woowu façon boobu ci la nabi daan waxanteeg yàlla ci la nabi di yàllay waxanteeg it Moustapha alaaji Basiru yaag sa xarit seen yóbbante ak si na yàlla na leen ko yàlla yombalal yombalal ko jurit yépp gisal boo déggee yaa aywa nabi njol màkk la ñuy léexu yaay waa mu desiru joo dégg nabi la ñuy léexu yaay waa mu samilu joo dégg Moustapha la yàlla yi léexu bu ne taama anzalnaa alayka alquran li tasqaa ila taskatan liman yaxwa tanzilan mimman xalaqa arda wa samaawaati ula arrahmanu ala arsi stawa lahu ma fi samaawaati wa ma fi al-ard wa ma taxta shajara njool Makka la yàlla léexu ياسم القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم نجول مكة اللي يالي ليخو ñeenti yoon képp la tudd tur bi circonstance yaa ko laaj nag dañu xeex-xeex bu ñu wax Badar saaba yépp a gañe am ñu ko fekkewul woon naan bu beneen offensive amee kenn du ñu ca jëkk ñu def attaque ma Uhudin ñu dàqaleen ngir nattuk yàlla sun borom na la yeddaleem ne yéen a fi doon xas démb gis ngeen dee tey daw am ñu lay ne dañ ñu ne ne Mohammed dee na loola tax ñu gëlëm ba daw yàlla nag xam ne su tuddul turu Mohammed carrément ndax indi léex kon day indi lënd mu won leen ne carrément waa jooju deem waru la tax kenn tekki sa ngem dal ne wala xat kuntum tamanoon al mawt min qable an talqaw fa qad raaytumuhu wa antum tanduroon na gees gees passage amul mu ñaaj ne wa ma muhammad illa rasulun qad xalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum ala aqaabikum wa man yanqalib ala aqaabihi falan falan yudri la sha terewul wa sayajzi llahu saakiriin mu départ di ko wërtu daatu ko Baali Imran jeex tak deux cent aaya la soo jàngee ba am cent quarante quatre fa ngay fekk Mouhamed soo départee dem saar yi si des yëpp tudduñu ko te xaj ko du kat fukki saar la ak juróom-ñaar fukki saar la ak juróom-ñaar allah ji ajuma yàlla na yàlla yombalal wërsëg bi hormati saydil wujudi wa alami suhudi wa ma salika ala llahi bi azisi Moustapha yàlla tuddaatu ko ba inna fataxna ba suratul laxsaab ba laxsaab gépp nag moom lay waxal nee naa lay arab bu la tuddee keef te miim topp ca liif topp ca keef ga génnul ka ñuy waxal am na garaat yu ko taay la taxal ca laxsaab takkal na ko fa garaat yooyu nee na koy naalal naa lakk aswaazuka lati haatayta ujoorowunna wa ma malakat yaminuka mima falaw alayka wa banati amika wa banati amatika wa banati khalika wa banati khalatika lati hajarna maaka wa imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linnabi'i in arada nabi'u an yastankiha ne ko xaalisatan làkk xaalisatan làkk min doon man yàlla ne na yaa ayuha alladina amanu لا تدخلوا بيوت النبي إلى أن يؤذن لكم في التهامين غير نادرين أنيح ولكن إذا دعنتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتظروا ولا مهتمسين لحديثنا ذلك كان يؤذن النبي فيستعي منكم wala wala yastaxyi min alxaq ku bari kersa la woon saaba yi dañ daan toog ngir sopp ko kenn du néega ñibbi li rote ci gémmiñ gi ci xeeti xam-xam moo tax ñenn ñi duñu néega de ñi nag taar bi la ñuy seetaan ba duñuy néega ñibbi jekk dëgg te feeg yaa ngi ci moom di jekk ñenn ñi looloo leen langal ba daan na soxla boppam du mën a jot boppam yàlla wax saaba yi ne leen bu ngeen toogee tuuti de leen génn néegam bi bu ma gisati kenn ku fi dugg lu dul dañ la oo oote bi na doon lekk lekk giit bu mu ne ca taal ba na ñor ba ñu upp ko ba mu set bu ngeen lekkee ba noppi bu fa kenn sos waxtaan génn leen génn lekk toog di waxtaan day lor na bi mu am kersa wax leen ko man yàlla nag du ma rus dëgg génn leen néeg jàmbur laa tadxuloo bu leen duggati buyoota nabi waxul bayta nabi buyoota nabi ci yoon boo amee ñeenti jabar sañ ngaa am benn néeg ku aya ku aya fekk la ca mbaa nga utal ku ne néeg bañ a am néeg ku aya nga fekki ko nabi nag da daan fekki yàlla nag interdit juróom-ñeenti néeg yépp moo tax bu yoote nabi bu leen ko fekkati fenn nag ayam boobu di ko toogaanu te oowu leen balaa leen a oo it na ñam wi ñor ba ñu upp ko ba mu sedd dugal laxasu lekk te ko noppi na génn may ma mu ne laa tadxuloo bu leen duggati bu yoote nabi néegi jabari Moustapha yi ànd ak moom ilaa an yu dana ndare boo xam ne daf leen digal oo ak oote ilaat xamin jëm ci ñam ñam woo xam ne xayra naadiriina anihu di ñam wu ñuy muñandi ko yor su ñam ñoree ba ñu rëcc ko ba mu sedd ba ñu oo leen walaakin bu loolu amee ba ñu oo leen ci ba mu façon te daa daxaltum dem dugg ngeen ngeen isa doyntum dem oo lañ leen duggi leen bu ngeen lekk duggee lekk li doon ko am tum bu ngeen lekkee ba noppi ba tey woo jóg leen dem wala mu anisiina bu leen fa sos li addisin ci waxtaan wu jëm ëllëg inna saalika lekk toog di waxtaan kaana nekk na yu di di jur lor li nabi ñel Moustapha fa yesta yi mu rus minkum ci yéen walaaw yàlla miy wax ak yéen nag moom laa yesta yi du rus minal àq ci dëkk génn leen. waa daanaa wax waa waa kër na bi bu ngeen yeboo góorgóorlu lu sëy ku am goro bu toll ni yàlla boo sëyul musiba dal ay jabaram mas nañ koo takkatoo ngir mere ko ne ku mu ci ooti bul wuyu lu mu ci santati nit bañal ah ku fi am jabar ne duma yëpp yaa ngi ci njuumte de bante yu wow kongale ku leen jubati mu damma de banta bu wow kong lun ko lool lañu boo jéemee jubbanti rek mu damm Abdou Khadre xam nga luy damma géem mooy sëy bu tas ah nabi masa amanteeg ay setu ay wax nabi yónnee ca Ababacar mu ñëw pour arranger leen bi ñu toogee nabi ne ndax ma jëkk a wax ay situ ñàkk lu muy tontu na ko jëkkal wax waaye waxal dëgg Ababacar dafa tiit ba dóor ko yonent bi mas nay wax ak moom ne ko boo ma meree rek ma xam ko mu ne ko loo koy xamee mu ne ko ci ñaari yëf ay si dafa amoon habitude buy wax bay giñ danaan wa rabbi muhammadi waaye bu ko meree buy giñ danaan wa rabbi ibrahim ne bi ne ko nag jamono boo yëkkate sa ngiñ moom rek ma xam ne ñaareel ba tegu ci dootul nangoo roy ci moom julli ay si ree na ko xam nga ma biir loolu la amee ni nga ko waxee ku ko bëggoon la nag ndeysaan bu ma saa jël ay kenn par kenn ba jabar yi daj balaa jëlaat ca ka jëkkoon day taxaw ci digg kër ga tàllal ñaari loxoom yàlla naka allahuma la tuwaxisni bi ma la nasiba la yàlla boo légee bul ma dumaa lu dul sama wàlla jëmm ji laa commandé fanaan naa ko néeg bu ne xol bi yaa ko commandé ki mu gën a bëgg yow la kon bu ma dumaa loolu defuma ko door a reprendre raat commencé ti ay baati gis naa jabar mu dugg ci nekk ay situ yàgg fa yàgg fa yàgg fa ba jabar yëpp jóg ne Fatimatu dugal ci néeg bii nga ne sa baay mu ragal boromam ci ndaw soosu waaw waaw ñu dem mu ne ko bàyyi sama ñoom tànk yépp ngi taxaw fii de nee nañu daal nga ragal sa borom ci daw mu ne ko soo demee ne leen ku ma bëgg a bëgg ay situ mu génne ne leen bàyyi ne na ku ko bëgg a bëggaale a isa ñu ne ko sa tonto doyul ool ñu sey na ba sey na bu ñëw ñu yónni ko ca góor ga mu dem wax ko loola ne bi ne ko laajal ma leen ñoom ñëpp ku ci am baay bu mel ni Ababacar nga xam ne boo loo kooku am na ñaari wàccuwaay ginnaaw bi Moustapha dee toog nañ ci benn néeg mu ñëw di leen nuy si moom Aïssa naka la ak si ñoom ñëpp ñu jóg màggal ka ndaw suñu wax safiyatu bañ na afsatu bañ na du jóg soxna si jàmm sante toog ne ko yow lu la tëree jóg màggal ma comme ñëpp mu ne ko xaw ma ngëneel góoma gëne gu ma la war a màggalee ñii day ñenn ñi day fa xare jàppaleen ñii seeni bàyyi tuub waaye man day xamaloo ma gën xuree si nga bokk ci laa bokk sa baay doon na xalifa nabi sama baay doon na ko Omar ma jur jabari nabi nga jabaram laa loo ma gën mu ne ko ko Moustapha denc rek gën naa la fukki yëf tey ma wax leen ko jigéen ñi mu takk ñëpp ku ci ne góor jiitu na ko ca ginnaaw man juróom ñaari at laa am war a toll ci ngor fokk ñu may ma ko sama baay dencal ma ko ñaari at may jabar te jébbale wuñ ma kon jabar yi mu am yépp man dong la ci takk ci ngune amul kenn koo xam ne kii jibril mas na koo fekk mu sangoog na bi ci mel na ma naan ku dul man daana ko fekk ay situ ci mel na malaan mu dóor ko wax yu mas naa tawat ci moom ñàkk gi ma ñàkk a doom ak moom mu ne ko ku may bàyyam yaay ndeyam ku bañ na doo doon ndeyam duma doon bàyyam sama jàkk jële ca tanxiim na bi ne na ko aj màkk siyaara ko te demu ci julli sax aj duñ ko jël na bee ngi dee ci sama néeg mu ngi dee ci sama ay sama diggante ween yi ak sama lupp ci la dee jant ba muy dee samay tufli daje na ak yosam te yow mii nabi mas na laa bëgg a fase jibril la ko tere ma yëgal la ko te mun a ñoo képp màggal ko ba mu màgg mu dóori dajuwaat ay setu am na ay ngëneel gisal bi na di feebaree ba feebar ba mitti ku maandu woon la da daan wax ay na ani xadan fan laa aye ëllëg su bay rooy ñëw ànd ak Aliyu ruuf ko tànk yi watatu ba ñu dugal ko néeg ba mu aye ndaw su ñokk musalmatu moo oo jigéen ñi def leen riiniir na leen góor gu baax gi maandu rek ko jàpp waaye ki talatul ay comme ay situ la gën a bëgg nañ d'accord nun ñëpp bàyyi ko mu feebare nekk ay situ mën naa jur sax wér te bu wéree ñëpp a koy bénéfice ay situ nañu d'accord ko ba kook man waaye kat terewul contrôlé naa ba bu ay ba continué woon keroog ba muy dee maa war a aye yoor yoor ba nabi génnee àddina
ba fajar xare ba saaba yi nodda sàppe ba julli dees ne ne tel rido bi dox digganteem ak jàkka ji ndeysaan booba saaba yi gëj nañ ko gis quatorze jours ko amul priorité gisatoo ko priorité bi nag mooy sa jigéen di sëy ci kër gi mbaa sa doom mu ne tel ak taaram bi mu ngi takk bopp bi ak musóor gu soon naka na ñoxeet fekk Ababacar di jëm ca kanam yi jàkka ja pour jiite naka la ko seen rek rek kilaar ya ne bi ne ko màkkaa na ko continuer Alaaji Malik Samba moo nu ko sarax Alaaji Malik Samb moo ko saraxe ne yal na nu yàlla taas ci sa barke yow Ibou Sakho mi soow ci nabi ba ñaq waaye moom mi dundal yëpp mit ci Moustapha yal na nu yàlla nangul nangul ko te taas na ci barke gis ngeen mille francs bii ci dulul yokk ko du fen te ñu dugal ko ci ku toll ni Moustapha ngir yàlla billaahi sunu defaru nun ñëpp xet na ceeb ñu dul ñun yàlla na ko yàlla def defal ko jullit yépp bi jaayi rasulillahi sallallahu taala alayhi wa sallam lan laa doon waxati xamatuma ko de ah okay waaw góor aywa biis waaw Aïssa ba nabi ne rido ba til Ababacar recule à l'arrière daf ko ne makkaana ko continuer julli daa ne rido ba dëj ci kaw lalam am lu mu wax yàlla ne comme gars yi mën nañoo wéet rafetal nii julli gi fukki fan ak ñeent kon yónnante bi àgg na dee fi sës waaw gisula naka la alxuraan jeex rek na bi dee xam nga lu tax Alaaji Sidaat Jaw yal na ko yàlla yokkal wërsëgam yokkal ko jullit yépp bi jaay rasulillahi moom itam li ma waxoon sànq ca bële moo am ci bii rek yal na ko yàlla tàggatal wërsëg tàggatal ko jullit yépp ndeysaan nabi toog saa ba yëpp kontaan na góor gi tane na waay góor gi tane na waay ndeke te yoo góor gi tey la war a def ba ñu sëlmalee ña am priorité dugg di ko seet si càmmiñe ay sëtu cala mu ngi indiwaale soccu ne bi nag ku bëggoon soccu la daana wax ne bu dul woon bañ fitna dinaa ko def sunna muy sama xeet bi moo tax doo gis mukk gaa yu xees yooyu ñu xonq ñooñu di soccu ak ñooñu te xeesuñu waaye ñu di leen niru nirulu ñoom it duñu soccu parce que ngëneel a ne ci biir te sunnat rasulillah bi la waaw julli gooy bëgg a jàppal socc ko mu ngi ëpp doole gi nga jàpp te socc loo ko juróom-ñaar fukki yoon